assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu nuyu mbokk jullit yi nuyu jullit di nuyu lislaam bi sunu boroom tànnal jullit ñi di ñaan sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala suñuy kàddu fekk leen ci jàmm ak yërmande yàlla mu mel ni nag dañuy del siwaat ci sunu jataay ak yóbbalu ndaw ñi muy jataayal xam-xam waaye di jataayu fàttalikonte ñu doon jàngale nag téere bi ñuy wax na nafis ñu tolloon ci bunt bi ñu mujjee woon jàng mu loon jàngale lan mooy waral njàpp lu toj maanaam yan jëf ñooy waral nit ki njàppam toj kon mel ni suñ bindu tey nag dañuy jàngale lan mooy attey sangu farata ak ay waru garam ak la ca aju moo tax mu wax ne faslun li ab dog la fii axkaamil li ci attey sangu farata wa mujibaatihi ak ay warteefam wama ak lépp loo xam te ni yataxallaxu dana aju bii ca moom mu kon li dafay jàngale sangu farata ak lépp lu aju ci sangu farata moom lay jàngal di ko leeral mu ne yeju dana dikke wala dana war xuslul faridati sangu farata min salaasatil asiyaayi ci ñetti mbir bilam tiraa yi ci lu dul sikk sàkka mu ne kat sangu farata kon mi ngi waree ci ñetti mbir ax nii la ma ci jublu mooy janaba wa ak mbërëng wa nifaasan wasin amal janaaba ndaal janaba nag fatuxaas def na xiyaas xismay ni muy ñaari xaaj fa awwalu aji njëkkam xurujuhu mooy ak génneem min rajulin tukkee ci góor bi lasatin ci bànneex moxtaadin ba di bum baaxoo fal tax xil na xelu mu nekkat kon sangu farata war na ki nga xam te ni dafa génne man yu mooy ki amee janaba war waaye ki amee tamit deretu mbërëng mooy reegal ba mu set war naa sangu farata waaye ki amee deretu wasin tamit ci jigéen googu bu setee war naa sangu farata mu ne waaye nag bu dee janaba nag mooy génne man yu dañ koo xaaj ñaari xaaj bu njëkk bi mooy génne gi nga xam te ni góor gi daf koy génne man yu te mu ànd ak bànneex ba mu baaxoo àndal moo tax mu ne finnaw mi ci nelaw aw yaqasatin wala ci ak yeewu jimaaxan ci booloo mooy booloo góor jigéen aw xayrihi wala sax ci lu dul booloo min xubulin tukkee ci xubal ijmaaxan ci dajeeg fóore yi wasaani ñaareel ba maxiibul xasafa mooy fàdduk sàkkara wala nga net mooy tàbbik sàkkara fi fal ji ci pëyi walaw bila ixraajin te doonte génne wut maa in ndox fanxari xamal mu ne ñaareel ba mooy nit ki mu génne màndiwu ci ay nelaw wala sax nekku di nelaw dafa booloo góor wala sax ci lu dul booloo nga xam ne booloowut ci misaal nit ki doon nelaw gént génne màndiwu wala sax fekkee nelawut jaxasoon ak jigéen ci ak riisonte wala ci lu mel ni ay fóonante wala muy xalaat jaxasoo góor ak jigéen ba génne man yu te mu ànd ak bànneex ba mu baaxoo àndal buñ ko waxee nag mooy nit ki mën naa génn man yu te fekk mu feebar maanaam mën naa am mu génn man yu fekk tiitaange moo tax mu génn ko wala muy xasanu ba mu génn wala jurgóotu ba mu génn yooyu moom bu dee yooyu day dem laxas sobe sa te fas yéenee jàpp yeesal ak njàppoom waaye nag du sangu farata ndax génnewut ci moom ca nam baaxoo génne te ànd ak bànneex ba mu baaxoo àndal feeg loolu dajewu ci rek kon day dem raxas sobe sax fekkee jàpp moom day yàq njàpp dam ne mu jàpp yeesaluwaatu waaye rek du war mu ci moom sangu farata moo tax mu ne bu ay nelaw wala su fekkee nelawut xam ne da doon xalaat jaxasoo góor jigéen wala muy jonjante ak jigéen wala muy fóonante ak jigéen yooyu yëpp bu ci def rek fekk mi ngi xoolee nga xam ne nelawul yooyu yépp day waral sangu farata mu ne sax wala góor sàkkaraam tàbbi ci sàkkara jigéen wala sàkkara seneen su wala sàkkaraam tàbbi ci jeneen pëyi maanaam jeneen sàkkara ju mën di doon donte sax génnewut ndox nga xam ne génnewut màndiwoo waaye tàbbi na ci sakara seneen sakara rek kon li war ci moom mooy neem sangu ji donte nag génnewul ndox waaw loolu moo tax mu ne bu sàkkaraam tàbbee ci pëyub jigéen wala ci beneen pëyub bu dul jigéen rek sangu fa la koy war donte génnewul ndox mu ne wala mu yëkkun te nekkut xuslun sangu ala man di war ci ka nga xam te nii muxtalimun aji gént la fi ruxaat ci yendoor wa minhu te moom lam yaxruj génnewut layaat dara mu ne ki nga xamante ni da nelaw nag waxoon na la ki nelaw gént jaxasoo góor jigéen ba génn man yi sangu farata war na ko waaye fii daf lay wax ne la ki nga xamante ni dafay nelaw gént rek jaxasoo góor ak jigéen waaye dara génn ci moom dara génn ci moom nee na kooku moom sangu waru ko mu ne wa man yajid ku fekk fi saw bi ci mbalaanam yaa bisal man ni aji wow man yu walam yekkun te nekkut waxta isaabatil man yu di xam waxtu womu walam yekkun te nekkut da ngay andi di xam waxta isaabatil man yu waxtu jot man yu te taxara na laablu wa man axaadata wa axaadata mbaamu wa axaadata mbaamu maa salla lam julli woon min nawmihi te nelaw xadd nekkoon na saaru xaddi mu yendoo fii ci moom ne ki nga xam te ni moom dafa ñëw fekk ci ay yëreem man yu boobu wala ci darabam ba mu tëddal waaye xamut kañ la ko fi def kon day xelaat nelaw ba mu mujjee nelaw mu jàpp ne bii nelaw bi kat ci la génnee man yu mu xool nelaw boobee ba fi mu toll jamono jooju la mu julli woon lépp da koy baamtu ginnaaw boo xamee ne dem na nag sangu farata ba pare kon day dem sangu ji farata baamtuwaat woon ci ba mu dalee nelaw ba fam yam kon kooku noonu lay def xam ne moom ñëw na fekk ci ay yéreem man yi xamul kañ waaye ba mu nelawee ak léegi moom jàpp na ci la diggante boobu la kon day baamtuwaat ay julleem ginnaaw bu demee sangu farata ba pare kon loolu mooy atte yi nga xam te ni moo aju ci wàllu laablu ci diggante sangu farata ak la ca aju kon lépp lu fi jub ci yàlla la lu fi dëng ci jëm yu xeeb yi ngi ñaan su moom defal ñu dégg ak topp defal ñu tawfiixam in uridu ila al islaaha mastataxtu ma tawfiixiya illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib ñuy sant mbokk yi teewlu jotaay bi yëpp ñu nekk ci biir réew mi yàlla defal ñu jàmm ak tawfiix wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ata